maa ngi yeesal sama lépp ci borom Tuuba xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jàng di ñaanal saahibatul fadilatul xalifatul am li taaifal muridiya di borom Tuuba sëriñ Muntaxa sunu borom gën ko fee yàggal te may ko ak wér gannaaw ba ma ñaanalee sëriñ Muntaxa Basiiru sunu borom gën ko fee yàggal te ak wér man Ahmadunal Basiiru maa ngi ñaan yàlla lépp lu mu taamuut ci ab jaamam rek rawante na xeeti caay yi ngeen xam ne ngis san ca bokk mooy di jëf te yàlla taxut ak jaam bi di gis dara ci boppam lépp luy xeetu matadi di mel noonu rek man maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ca faw ba noppi nag takkaayale moom mboolem ngëneel yi ngeen xam ne moom la taamu ab jaamam melowoo ko takkaayoo ko maa ngi koy ñaanit it mu musal ma ci ayu iblis mi ngeen xamee ne dafa fàttirlu ne du topp te boole ca ne ñëpp danañ mel ne moom aw fi mu aw ndax bu ëllëgee ñu bokk fu ñu jam maa ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci iblis moomu musal ñu ci ayu lépp lu amu ay ndax yàlla moom moo sàkk lépp te lépp lu mën di sàkk te mu amu ay moo xam ci suuf la nekk moo xam ci asamaan la nekk lu mu ci mën di doon rek maa ngi koy ñaan mu musal ma ca faaw ba noppi nag takkaayu la moom mbooleem gënee li ngeen xam ne moom la taamu ab jaamam meloo ko takkaayu ko ngi ñaan yàlla daal ci mbaaxam ak ngëneelam mu nangul ma te jëf ji xam naa li ñu bëgg a nag mooy sëriñ bi ndax xamuñu ci kenn dara ku dul sëriñ bi te sëriñ Touba ci saahir si lay waxtaanee ak moom Ahmadou Bamba la tudd waaye juróom bu góor sëriñ Mamour Anta Sali Kane la tudd waaye juróom bu jigéen jaaratullahi Mariama Bousso la tudd askanam tukkulóor la Mbàkke Bawal nag la ganee adduna atum junni ak ñaari téeméer ak ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay gi ci weeru baraxlu fukki fan ak juróom juróom ñaar fukki ak ñaar moo di ak dundam ci àdduna ci saaxiir ci atum wamsasin ci ñaar fukki fan ci weeru tamxarit bisub àllarba la ñu noppewoon ci ab dencam ci saaxiir si ci àdduna ci atum wamsasin sëriñ bi sëriñ bi moo ko dalal alxuraan ci ndigalul way juróom ginnaaw ba la ko jox nijaay soxna jaara yi ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe ba mu faatoo la dellu ci sëriñ Maamor Anta Sali yeggale alxuraanam ci moom tàmbali di jàng ci baayam bu ndaw Sàmba Tukkuloor Ka ca Saalum gannaaw ba mu dem Paataar di jàng ba tey ci waajuram daana dem itam Njaañ dafa jàng di ñëw Paataar ginnaaw bi la ñëw Mbàkke Kajoor ànd ak waajuram ba waajuram làqoo tuuti da tàmbalee tërbiya teg ci tuuti ñëwaan Mbàkke Bawol teewul nag mu daa wër nit yàlla yi di leen ziyaare rawante nag naari gànnaar yi ginnaaw lii la sanc daaru salaam ngir lor ñu ko doon lor ginnaaw ba mu sanc Touba teewul nag muy bàggaan ci biir diggante daaru Rahman ak daaru Xudóos ak daaru Minam ginnaaw lii la dellu Jolof sancaat Mbàkke Bari ginnaaw ba mu fa nekk ab diggante lañu ko woo ndar ngir ay tuumaal yi ñu ko tuumaal ci atum jay sasin mu génn bisu gaawu ci weeru safar yegg jeewal fala jullee takkusaan fanaan fa itam xëy wuti kokki fala yendu jóge fa ginnaaw gee ci fas la war yegg Louga ci fajar fala yendu ba mu jullee takkusaan nag la ci saxaar gi wuti ndar yegg ndar ci timis fa la nekk fukki fan ya desoon ca weeru safar ak weeru gàmm yëpp ba mu des alxames booba nag la jógee wut si ndakaaru yegg si ndakaaru ci timis fi la fanaan si xëy ñu yendal ko ci biir gaal ga bisub ajjuma fanaan fa door faa jóge bisub gaaw ñaari fan ci rakki jaar na Konaakiri waaye wëcc fa jaar na Karambasa waaye wëcc fa jaar na itam Dawme waaye wëcc fa bisub àllarba nag bisub àllarba la wàcc Gabon am na dund bu mu fa am diirub juróomi at maa yomba itam baa xamoon ngeen ne mi ngi ci biir Gabon Sëriñ ba am na fa ñetti at yu manqué tuuti te lépp nag mu daj fa ay coono yu méttee méttee métti borom Tuubaa lam fa daj ci jësaa u sakura tuuf dafa wax ne du ko mas a wax ndax du ay teggin ci diggante ma boromam muy tudd coono ya te lépp tërbiya gi suñu borom doon tërbiya li am solo daal mooy lépp lu ma leen man di wax ci jaar-jaar yi sëriñ bi mu gàtt mu néew ñu am nañ si jàngal ndax ñun waxtu ci nekk bu ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ba ab coono dal ñu dañuy bàyyi liggéey bi boole kook di jàmbat moom nag coono yi da daan doole ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey bi diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ceew rek la jëm waaye nag góor ña jigéen ña dañ fay jaxasoo fa falax gisee Sëriñ Tuubaa ni leen xam ngeen fa ngeen ko doon defee ñu ne ko waaw mu ne soo leen demee suuf sa féete woon kaw na ngeen ko tonni te dem tuuri ko te lu mujj tey ba mu ko gisati loolu lii la wax keroog mas naa moo xam ne ku ñuy wax Sëriñ Abdoulahi Diop Kalsam bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo ba mu amee ab mu daal ubbi bañ ñëwee sëriñ ne leen koo leen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan lool defe ne sëriñ bi da cee kenn ku ci nekk naan diw sàngam demoon na nga war diw sàngam demoon na nga war sëriñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcc ci ak jaatam tàbbi àjjana daal di dugg ci biir kon loolu day teg tegtale ne saa buñ masaan a wax bañ génn la ñu war a wax rek mu daal leen di ci aw yoon loolu dañ ko war a xam te bañ a war suñu bopp bañ a nax suñu bopp Sëriñ Tuubaa moom lu waaye yeewu yeewu mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax ku masaan ñëw ci moom ak loo ko mën di wax rek dana la teg ci aw yoon waaye lam cay teg ñun ñi lay dimbale ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mu ne la am nga ñun ñu ko fi fekkut bëgg a dem ba ci moom bu ñu ko bëggee am ni ñu koy amee jàpp ngeen ne mënuñu ko am mën nañ ko am teg nañu coon ñu ko mën a amee am na ku ñuy wax Serigne Alassane Ndir Serigne Alassane Ndir daa jóge woon Dakar ñëw di andi asaka ci i bi bi mu ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox Serigne ne ko def nga loo rafet boo delloo ca Ndakaar ba nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alxuraan tudd nga jox leen ko soo xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu def noonu daal di jëlaat téeméer indiwaat ko ci Serigne bi mu ne ko lii moom addiya la daa am ñett yoo xam ne dama koo bëgg dama bëgg nga dimbale ba ma am ko sëriñ bi ne ko su ma ko xamee te suñu borom sant ma ko te du la araam na nga ko am mu ne ko mbàkki li may wax kay du la araam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam su ma faatoo dem na te damay jaay bëgg muy jar sëriñ bi ne ko ñett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko maye ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñaq la ñuy dundee nga seet fa ku la bëgg nga bëgg ko ay mbokkam bëgg la nga jël sa alal ju la lew def ko ca boo ci amee doom dana baax mu ne ko loolu kay mën naa ko sëriñ bi ne ko defal ndànk néewuma na nga ko ci am bu ko ci sa borom doogalee laa mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo dem àjjana mu ne ko da ngay seet la yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo na nga tàbbi àjjana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëriñ ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëkk ne ko jafeeru njëkk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeeru njëkk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëriñ ne ko booy jaay daa am àqi sunu borom yu ciy war muy àqi way jur ak asaka ak sarax yu mel noonu soo ko dul génnee day a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jeelee jooy soo jeeyu tàbbi jahannama ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëriñ bi ne ko jébbalu julli joxe jannatu rek mooy ak fayam kon borom Tuubaa léppam da ko daan leeral bisub gaaw la dellu si waan Ndakaaru juróom benn fan ci baraxlu atum kasasin ci gàddaay gi daal di ñëwaat Ndar am fukki fan ak juróom juge fa bis bi njëkk ci ramadan di talaata ñëw Louga kër mbokkam Serigne Cheikh Thioro jóge fa guddi gaaw jaar kër Serigne Julu Cissé ñëw kër sëriñ Siréloo yor yorub dibéer nekk fa la des ci ramadan ba mu jullee korite bisub alxames teg na ci ajjuma gaaw ba mu salmalee tàkkusaan dafa jóge romb kër ngoor ñëw boole fa timis ak gee fanaani kër Makka Samb Babu ñëw kër baayam ba ndaw sëriñ ibrahima mbàkke kajoor bisub altine ba mu sëlmalee tàkkusaan la fa jógee romb kër ngóor ñëw boole fa timis ak gee fanaani kër màkk sàmba baabu jóge fa bisub dibéer ñëw kër baayam ba ndaw sëriñ ibrahima mbàkke kajoor bisub altine ba mu sëlmalee tàkkusaan la fa jógee jaar kër ma sàmba xari jóob jaar kër ma sàmba xari jóob jaar kër maxtaar fanaan fa yenn fa ba ngoon ci bisub talaata mu ñëw kër muxtaar mariama silla ca jaxal am fa ay fan ñëw kër muxtaar sàmba jóob ca kokki yenn fa ba ngoon mu jóge fa wut ci daaru salaam am ba fukki fan ñëw daaru mën naan ba mu fa nekk ab diir la ñu ko woowaa ndar mu jóge fa bisub gaawu ginnaaw ba mu sëlmalee tisbaar fanaani ngaabu ñëw njëreem ci suba ga jaar Touba Toul ñëw Tiwaawoon dugg saxaar wuti Louga jóge fa ñëw Dagana am na fa juróomi fan doori ñëw gànnaar sarsaara fa la waree Ramadan ñëw tontu muxsin ak xumaak ak jiraariya ci weeru gaam atum xag sa siin la fa jóge jaar yoon in ngi jaar julli ci seen jumaa ji ñaar rakka jóge fa ñëw Dagana am ba ay fan ñëw ndar ci maam Cheikh Ibrahima Fall am fa ay fan ñëw Louga ci alxaaji ma sax ma soxna booba nag la yeble ci yéen jolof ngir ñu sànc fa bala moo yegg si ba ma fa jugee la ñëw inga jax fanaan ci jàkka ja ca barabu seen sëriñ ba ba ma fa jugee la ñëw ci kër sëriñ daaro xasan njaay yenn fa fanaan fa yenn waat ñëw kokk ci sëriñ mouhamad maa mi sëriñ basiru jóge fa ñëw duriga ci sëriñ madun sàmba maa mi sëriñ mouhamadul mourtada jóge fa ñëw kër sëriñ baasin ca mouhamad amina xumma diop jóge fa ñëw ci yéen jolof ci tàmbali weeru rakki gàmmu hak sasin tuddee ko daaru rahman ca jumaadal saaniya sak sasin mu sancaat ca penku ba tuddee ko daaru daarul xudóos diggante ñaari kër yi mën na kilomètre wala mu yées ko ca tamxarit la fa jóge ñaar fukki fan a ñett bi sub gaaw wut si njëriñ génn na ba sori lool dooru julli suba guddig altine mu fanaan daaru alimul xabir ca sëriñ daam abdourahman ba mu xëyee ñëw njëriñ fa fanaan guddig talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci aw tamxarit fa la fanaan guddi a ñaar fukki fan juróom-benn ci aw tamxarit ci wetu kilifa ak dëkk ba fa la njëkk a nekk ci weeru gàmm alsasin dafa jóge ñëw kër gu mag tuddee ko na fa lu mat fukki ak juróom yoo xam ne li ko génn dem feneen bariwul mas na faa jóge nag wuy ci ndakaaru jóge na fa itam ñëw xuru mbàkke waaye ci atum wam sa sin la làqu sëriñ mouhamad Lamine Diop Dagana ak mouhamad abdourahmane tandax yi ñoo ko waajal sëriñ basiir borom mbégte mi ànd ak ñett ci ay woto yóbbu ko Touba Serigne bu Bousso moo doon taxawu jullee ga alhamdulillahi allazi hadina li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadina allahu Serigne Touba bi mu jàkkaarloog yàlla xam ngeen ni ko yàlla wax damaa bëgg nga ngeen xam ne kii la doon jox di rasulullahi lépp lu la mas a jox di rasulullahi mën mii di yàlla mag ko jox mu la koy jox jeexal na mën mii di yàlla maay ku dul jeexal maay wahidul qahar li nga doon tagg njool mag li nga doon tagg njool mag damaa bëgg nga jël sa xalima wàññaar bi ko ci man mii bind jàmm yi waaye ma man yàlla kañ ma man yàlla tagg ma man yàlla sama nguur gi nu ma ci toll man yàlla bàkk ma man yàlla boo ko mënee Ahmadou Mbàkke loo ma def loo ma def ko Sëriñ Tuubaa nee na ma jël sama xalima bëgg koo wañ bëgg koo way bëgg koo kañ bëgg koo tagg yàlla ne ma Ahmadou Mbàkke tagg wi nga may tagg bul ci boole rasulullahi bul ci boole malaayika yi bul ci boole Cheikh Ibrahima Fall mi nga àndal bul ci boole keneen si man ngay tàmbalee si man ngay yem boo ko mënee loo ma def loo ma def te xam ngeen ne sax laa tagg ma way ma te bul ci boole sama menn maam sama menn mbokk bul ko ci boole dana jafe lool pour mu way la waaye borom tubaa dafa dégg ndéela dafa kenn xamul lu mu doon borom tubaa la kenn xamul lu doon dafa dégg ndéela te muy ku yàlla dee xam ngeen lu mu njëkk wax yàlla wal xola wal jalal maalikal mulki silhuda wal kamal inna sal juda yaa tabe wal xulaa yaa màgg wal jalaal yaa kawe maalikal mulki yaay borom buur yi sil xudaa yaay borom njub gi wal kamaal yow rek a mat yàlla ne Serigne Touba loo bëgg tey ma defal la ko lan nga bëgg. seexul xadiimi ne ko rabbi nii rabbi raqi nii rumma saa nii saakiran lahu xabla faa il wasii nii nuuna ngi nii xabla faa gujiitu faa wasiinin ak siin boo ko firee muy nafsun yàlla yaa moom bakkana doomu aadama yi fay ma ñëpp ma yóbbu leen àjjana Serigne Touba nee na jaawartu naa si jéggi naa nit wa maa fi aydi naasi ak li ci loxoy nit ñi ilaa rabbi naasi ma dem ca yàllay nit ñi falamma wasal bi ma demee ilaa rabbi naas ci yàllay nit ñi xataa yan faxan naasi yàlla fayee na ma nit ñi wakafaana dura naasi ba noppi fegal ma nag lori nit ñi Sëriñ Tuubaa yàlla jox ko noosi ruuyi la ko jox moo tax léeg-léeg may dégg ñu naan réew mi Bàmba ko moom képp ku koy wax da nga ñàkk pas-pas Bàmba lan lay déyam réew ruuyi la Bàmba moom Sëriñ Tuubaa yàlla jox ko ruuyi ne ko ndax doyal nga mu ne ko doyalu ma de mu ne loo bëgg mu ne ko siini barke yi ak buntutu tuub yi caabi yëpp laa soxla bu kuma dugg na ci biir magasin di tibb jox ma caabi yi may tëj ak a tijj yàlla yëkkati caabi yëpp teg ko ci loxoy Cheikh Ahmadul Xadim Sëriñ Tuubaa nee na yàlla ne ko doy na mu ne ko doyut mu ne ko loo bëgg mu ne ko damaa bëgg nga jox ma nga neelal adduna ak nga neelal àllaaxira mu ne cas doomi soxna awa bu sa jàkk Serigne Bamba jël Serigne Fallou Mbacké jox Serigne Touba muy ngëneel loo xam ne tënk yu mu xasategu foofu dem sawar a fànn fa innal fadla bi yadihi la yuti may saaw wallahu sul fadli lil asim Serigne Touba nee yàlla ne ko doy na mu ne ko doy mu ne ko loo bëgg mu yàlla ne ko Ahmadu Mbàkke pàkkub Touba du ma ko may dama koy jaay Serigne Touba ne yàlla moom laa bëgg moo tax ba mu ko waxaalee moom ba jënd ko ba mu jar ba pàkk bi jar Serigne Touba daan yàlla damaa bëgg na nga defal ma pàkk bii nii di Touba saa yu may yeewoo suba saa yu ma sëppee samay tànk saa yu may liggéey saa yu may dox jamono bu ne ma koy gën di sopp di ko gën di bëgg na xam naa ne ëllëg fii ngay dëkk yow yàlla yow xaadim yow tabaaraka wa taala Serigne Touba ni ko hablil hida matama tuhilu watartali fii maskani tuuba laka tubsilu ni ko yow yàlla ñaan naa la dëkk bi nga xam ne moo sa wàcc waaye ëllëg nga koy gën di bëgg jox ma ko yàlla jël dëkk bi jox Serigne Touba Serigne Touba ni képp ku bëgg a dem makkatal mukarrama te mënoo faa dem ba mu fekkee Touba am nga aj na ko wa hajjatan liman bi dox fi irtada wa hujjatan wala muxaalifin xada mu demaat ci ma labul faw seeni di wax ne jël naa ruuxi taalibe yi ak samay doom ak sama lislaam ak sama dëkk dénk ko yàlla tabaaraka wa taala te yàlla nangu na dénkaa loolu téel ma ko Sëriñ Tuubaa ko waxal boppam ci Matlabul Fawzayni nafsi wa diini summa ahli wal wa maskani laka wa diina tan abat nafsi sama bakkan man xaadimu rasul wa diini ak sama diina ji nafsi wa diini summa ahli topp samay ñoñ di samay murit wala ak samay doom wa maskani ak sama dëkk ba di Touba la ka ñeel na la yàlla wa diyantoon ma la koy dénk abat faaw yàlla nangul bu fa tànkam duggee mu tàggoog bàkkaar bu faatoo ñu sul ko fa mu tàbbi àjjana waxuma la Serigne Touba de waaye Serigne Fallou Mbakke mii doomam rek yóbbu na nit àjjana ku musta jaam yàlla musta xam ni ñuy jaamoo yàlla faatu na Serigne Fallou Mbakke yóbbu ko àjjana bëcc nit ñi da ngeen a defe ne Touba Serigne Touba moo seet ba mu neex ko mu tànnal ko boppam déedéet yàlla moom su fu ko neex lay baaxal alxuraan dana la seen waa wa amilu saalihaati Touba la wax tuubaa la lahum yéen ñi jëfi sama ndigal tey bàyyi samay tere dig naa leen Touba ëllëg fii ji àdduna te demaguñu barsax Serigne Touba ne dëkk naa Touba maag samay ñoñ moo tax Serigne Saliou Mbacke sama yaakaar tey ëllëg mas nañ ko laaj ne ko Touba ginnaaw Cheikh Abdoulaye Lahat comme que yokk na bu wér a wér fan la Touba yam fi mu ne Serigne Saliou Mbacke ne leen Touba day dox ay tànk la yor dëkk bu mu seen waaxu wuti ko te bu demee bàgg ca dëkk ba boole ko ci boppam dugal ko ci yërmandeem Serigne Saliou Mbacke baax ngeen xam ne Serigne Touba ñàkk faatoom gii laa leen di leeral ba mu leer nañ ñi Serigne Saliou Mbacke dafa amoon ñetti jëmm yoo xam ne dañoo bàyyi woon ndakaaru ji dem Touba di nattu ji Serigne Saliou Mbacke ci Serigne Touba duñu way ngëm di way weddi dañoo yor seen 4 millions ñeenti millions lañ yor bàyyi ko ndakaaru dem Touba nuyu ko Serigne Saliou Mbacke nuyu bu sell jox ko seen addiya ne ko ñun ne Mbacke dañoo siyaare si woon yor ñeenti millions bëgg ko jox aji màgg ji Seexul Xadiim radiyallahu taala anhu ñëw ñu nag ngir jox la ko yow ñëw ñu ngir jox ko Serigne Mourtada Serigne Touba lañ koy jox ndax dañoo dégg murid ne Serigne Touba du koy faatu te Serigne Touba moo bind waxal boppam ne man du ma koy faatu yuhallimul hayyul lasi laysa yamut alxalqu anni abadan lasta amut boo leen demaatee ci téere bi ngeen xam ne moom la mujjee bind ci xasida yi bindaan na o fa ma fay bind di wax ne kafaaniyal baaxima ma tasarmada wa bi baqaay yasru ahmada léegi bi ñëwee ne Serigne Saliou dañ ko bëgg a jox Serigne Touba Serigne Saliou Mbàkke ne leen da ngeen di yendu ba bëccëg ba tisbaar ngeen xéewlu julli tisbaar ba noppi naa leen wan ngeen jox ko seen addiya mu ñoom ñett ñeent kër Serigne Saliou Mbacke bi ñu xéewloo ba julli tisbaar ba noppi Serigne Saliou Mbacke woo leen ñaanal leen yeewu leen daal leen jox ndigal ne leen dugg leen ci biir jumaa ji ci bunt bi féete sama buntu kër ngeen jaar ci xabru bi féete xabru Cheikh Ahmadul Xadim bunt ba féete xabru Serigne ngeen xam ne biñ ne waaye nag biñ ne tëll ci biir jumaa ji gis ñu kenn koy dox ci pàkk jumaa ji te xam ngeen ne jumaa ji jamono bu neen ñaa ngi mën bëri waaye keroog sama borom bëgg leen a àtt ji gis kenn koy dox ci pàkk jumaa ji kuy ziar la ñu dajeel ñu yëg ci kaw escalier jumaa ji te ñetti tu tànk lañ li tu tànk mooy ay gone ki jiitu moo sut ki ci ginnaawam ki ci ginnaawam sut ci ginnaawam mu ñett ñoo xam ne dañoo sutante ñoo ànd di yëg ci kaw escalier jumaa ji ñoom ñett ñi ànd yor 4 million yi ñoo ngi wàcc dajeeg ñoom waaye dañu leen a xool ñu ay xale lool ñoo ngi def boppam neen kenn ku ci nekk ak tànki neen sol yëri yu gëdd jumaa ji xeeñ parfum bu neex waaye bi ñu xoolee xool gis ñu ko dul ñetti gone yi ñu ne ñii daal kenn du leen ju xaalis bu bare nii ñu daal di wàññeekuwaat delluwaat ci Serigne Saliou Mbacké xibaar ko mbir ne yàgg nañ fa taxawaay bi yàgg na te gis ñu ma ko du ñetti tut tànk Serigne Saliou Mbacke ne leen ñetti tut tànk yi ngeen gis xanaa du ñett ñoo xam ne kenn ku ci nekk mën a sol lu weex ñu ne ko ah kay mu tañu def boppam neen ñu ne ko ah kay mu tañu def tànk neen ñu ne ko ah kay Serigne Saliou Mbacke ne leen ñett ñoo ñi ngeen gis de kenn ki mooy Serigne Touba ak Serigne Moudou Moustapha Mbacke di taam ak Serigne Fall kenn ki daal di jooy ne ko nangu nañ ne yaay xaadimu rasul addiyee borom Tuubaa ngi nii baal lay si ñaanal ni te Sëriñ Tuubaa lim ñu defal amul kenn ku ko mën ci ñun moo tax toog Tuubaa nag war na ci murit ndax nekk ci li mu bëgg képp lañu mën a sàkku ngërëm rawante nag jamono ji murit bu nekk war na koy jëm kem kàttanam ndax noonu sëriñ misaal yi daana digal ñu bari ci murit yi bu leen laajee dañuy wax ne wuti addiya ak yeeru njaboot gi moo tax mënuñu fee toog kem ki ñu joxle addiya lii la wax kon toog Tuubaa leer na nañ ci borom xam-xam yónnante baa kon murit bi lu mu am lu mu tuuti tuuti mu jàpp ci te toog Touba gën muy dem ak ñëw te bari alal lool ndax am na koo xam ne borom wilaaya la woon lool daa mas a ñëw njëriñam nuyu ko Serigne Touba ne ko tey de yow ko mu ne ko déedéet mu ne ko kaay dem dellu see Serigne Touba ne ko loo fa gis mu fa waaye ñi fa dëkk ku faatu suba dem àjjana ku faatu ngoon dem àjjana Serigne Touba ne ko loolu yi ñu doon wax ci yow la maa ko xamee ci loolu nga gis loolu day gën a dëggal loolee moo ne ku fi dëkk sa tàbbi àjjana ajowut ci sa jaam yàlla bu loolu jàllee war nañoo xam ne jaam bi laa wax sunu borom da ko bind ngir lan jaamu ko kon ku nekk war ngay fexe xam jaamu gi suñu borom bëgg ci yow waxtu gi nekk nga koy fexe amal jamono jii nag ku bëgg lu la noppal bay boo nga jiital sopp Serigne Touba ak di ko liggéeyal ak di jàng xasida yi door caa teg loo cay teg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi fii niin ak daala yàlla ففي بقاء بفيك يا الله بسم الله يكفيني أقال يا الله ففي بقاء